ci loolu ba tey it mas na bi mu amee fukki at ak juróom am na xeex bu xew biir màkk xeex boobu li ko waraloon mooy diggante yi ñuy wax xay xay su aylaan ak giir lañ ñoo doon xeex ak kinaanata kinaanata maanaam ñoom la ñoom la ñoom kinaanata ak Quraysh ñu àndoon muy giir gi yonente bi bokk yonente bi booba ay bàyyam yi ndaw ñoo demoon ca xeex ba mu ànd ak ñoom booba lam doon def ci xeex bi mooy ay fett loon jël leen jox ñu ñuy tiire day am ay xale yoo xam ne ñooy fett yi leen ko waajal xam nga fett moom du gaaw moo dañ lay jox balu nga nga tiire mu gaaw joxaat la beneen noonu la ñuy loolu loon loolu loon def ci xare bi mooy leen jox balu xare boobu la ñuy wax xarbul sijaar am nañu ko xarbul sijaar xare boobu nag yonente bi fekke na ko loolu moo ci doon liggéeyam ginnaaw bu xare boobu jàllee nag nga xam ne moom ay giir la yu ba yu dëkk ci dëkk ba ñoo doon xeex ci la am ñenn ci waa dëkk bi taxawal nag genn kuréel mu ñuy wax xilful fudul nga xam ne ñuy wax banu hashim ak banu abdul banu mutalib ak asad ibnu abdul uzza ak zahra ibnu kilab ak taym ibnu murra ñoom ñoo daje ci kër ki ñoo abdullah ibnu jadaan wax ne kat lii xew ci dëkk bi muy xeex bi am ci diggante ay bopp war nañ ko saafara li ñu def mooy nun nanu jaayante fii kuñ gis ku ñu gis ñu nar ko tooñ ñu taxaw ci kanam ña koy tooñ xeex ak ñoom ba tooñ ga dañ loolu it yonente bi fekke woon na ko keroog bis boobu moo tax yonente bi bi lislaam ñëwee mu daa wax ne loolee ma fekk woon ci kër Abdullah ibn Judaan de bu ma ci woowoon ci lislaam it ma wuy maanaam loola dara wutale ko lislaam ndax mooy taxaw ci ñii tooñ fexe bañ bàyyi tooñ gi fexe ba kuñ tooñ ñu delloo la sa àq loolu yonente bi alayhi salaam fekkoon na ko ni ko noonu it xam ngeen ne yonente bi ni ma ko waxee léegi daa tàmbali di li di lijjanti ay liggéey ngir dimbali Abu Taalib bi nga xam ne moo yore njaboot gi jàppale ko ci bokk na ci liggéey yi doon def lu mel ne sàmm nga xam ne siiw na moom bi mu amee ñaar fukki at ak juróom ci la doon sàmm di sàmmal waa Makka ñu am luñ ko ci jox mu koy dimbalee bàyyam bu ndaw Abu Taalib nekk noonu it am na ku ñu wax soxna Xadija xam ngeen ko nga xam ne ginnaaw bi moo nekk moo mujj nekk soxna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam itam dafa daa nekk ab moom dadaa commerce nekk jigéen joo xam ni daa bari woon alal di commerce di jël ay nit di leen fay ñu di ko wutali marchandise bu ñëwee jaay am lu mu leen ci jox bi mu déggee nag yonente bi ni mu nekkee ni mu wóore ak ni mu wére ak jikkoom yu rafet ci la ko wax ne ko dama bëgg nga ñëw nu liggéey maa yow yonte bi nangu mu ne ko dinaa la fay lu lu ëpp li may fay ñeneen gaañi yonte bi nangu loolu an mu boole ko xaleem bu ñuy wax maysara ñu dal dem wuti marchandise ñëw jaay yàlla dogal nag yoon woowee maysara seetlu yu bari ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam ci ay jikkoom ak ay doxaliinam ak ak mbaaxam ak ak it ni mu seete lu mel ne moom naaj wi daanaka du ko tiim lu bari lu ci bari daanaka fu mu ne day niis loolu mu seetlu ko ci kaw ci ci moom yooyu yëpp nag mu nettali ko soxna Xadija soxna Xadija dem seetlu ne commerce bi yoon bi daa gën a dox ca bu njëkk ndax daa ëpp barke xéwal gi daa gën a bari loolu yëpp nag bi mu ko seetloo moom soxna Xadija ci la waxtaan ak xaritam bu jigéen bu ñuy wax bu ñuy wax Nafisa bintu Muniya wala Maniya soxna soosu la waxtaanal ne ko dama bëgg nga waxtaanal ma Muhammad Seydina Muhammad ngir bu nu mënee ànd maanaam ngir mu takk ko ci loolu nag soxna si bi mu waxtaan ak moom sëñ so Seydina Muhammad waxtaan ceeg ay bokkam ñu daal di nangu sëy bi daal di am nga xam ne soxna Xadija mooy soxna si njëkk a yor moom it bi mu koy yor xam ngeen ne mi ngi am ñaar fukki at ak juróom soxna Xadija am lu xaw a jege ñeent fukki at nga xam ne soxna Xadija mage na ko lu ëpp loo xaw a jege daanaka xaajub dundam ñaareel ba itam mboolem njaboot gi mu am moom Seydina Muhammad soxna soxna ko ko ko moo leen jur wutaatul beneen soxna itam diirub mu fi ne bi mu faatoo ci la doog a amaat yeneen i soxna soxna Xadija bi mu faatoo mi ngi am ñe juróom benn fukki at ak juróom Seydina Muhammad boobu toll ci juróom fukki at nga xam ne boobu dugg na ak mage ak màggat loolu lu am solo la ci dundu yonte bi nga xam ko ndax dana dana tax nga xam yi ñuy wax ci mbirum soxna yooyu ñàkk mu ko ñàkk itam ndax toog toog na ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne jéemu tawut benn soxna kee moo ko moo moo sàkk ci moom ngir mu takk ko muy soxna Xadija di ab jeeg boo xam ne sëy na ñaari yoon boobu ñaari yoon nañ ko ba bàyyi ko ginnaaw bi itam mu bi mu nekk di mu nekk ak moom it wutaatul beneen soxna te booba xam nga arab yi naar yi booba dañ daa bari soxna ñu kenn xamul ci soxna lañ daa yor duñ du bokk ak jaam yi nga xam ne moom seen jaam bopp lañ doon nga xam ne moom duñ la dimaale moom te yooyu yëpp mos ci am benn ba ni mu amee juróom fukki at soxna si nelaw mu doog a nag amaat yeneen soxna yoo xam ne benn bu ci ne am na sabab ci ci ci des xëy na des na ko waxtaane ci ci li des ci waxtaan li ma bëgg wax mooy soxna soosu moo jur ak njabootam xam nga ne Seydina Muhammad kenn ci doomam rek moom la soxna soosu jur mooy ki ñuy wax Seydina Ibrahima waaye ñi des ñëpp soxna Xadija moo leen jur tàmbalee ku ñuy wax Alqasim Alqasim Alqasim moom lañ koy dàkkantale moom Seydina wa di wax Abul Qasim ak soxna Zeynab ak soxna Roqaya ak Ummu Kalsum ak Fatima mii yaay Xasan ak Xuseynu ak Abdullahi mi nga xam ne moom la ñuy tudde léeg-léeg tayib ak ak tayibu tahir ak tayib ak tahir ñaar yëpp lañ koy wax léeg-léeg te mooy Abdullahi Abdullahi moom nag moom la ñuy wax tayib léeg-léeg di ko wax tahir moo Qasim ñoo ci góor ñi ci def ay jigéen lañ mooy Zeynab ak Roqaya ak Ummu Kalsum ak Fatima ñoo ñëpp soxna Xadija mooy seen waajuru jigéen yàlla dogal itam Seydina Muhammad ay xale yu am njaboot gi mu am yëpp dañu teel a faatu ci seenu ndaw doomi jigéen yi mu am it ñoom ñëpp fekk nañ bi lislaam ñëwee bi yonente bi tàmbalee woote waaye kenn ku ne dafa faatu ci dundu yonente bi ba mu des kenn muy soxna Fatima moom yonente bi jiitoon na ko juróom benn weer rek mu doog a faatu ci loolu it am na loo xam ne waxoon nañ ko xam naa mel na ne niñ ko toppee nii xaw naa yéex waaye mooy kaaba gi xam ngeen ne itam njëkk Seydina Muhammad di gane àdduna dafa am taw bu bari bu am ca Makka yàq fa lu bari ci kër yi te xam nga kaaba gi booba niñ daa tabax bu njëkk bokkut ak léegi dañ daa jël móoli rek jala jala jala bam ba bam nañ ca kaw kaaba gi nag tàmbalee yàqu tàmbalee mabb lenn lii daanu mbir bi dëgëratu wóoru itam waa dëkk bi biñ demee ba gis ne mbir bi wóoratut ñu ne nañ ko defaraat kaaba gi bi ñëwee ba ci defar bi bi ñëwee ba ci defar bi booba ñoom ñëpp ragal nañ ko ragal nañoo ragal nañoo màbb kaaba gi ndax kenn ñu mu ta njëkk a dóor kaaba gi ndax xamuñu boobu leen ci fekk wax nañ ne wax nañ ne al walid ibn al mughira al maxzumi moo njëkk a jël kii rek dóor dóor ñëw kaaba gi ñu gis dara jotu ko gaa yi tàmbali nag doo ko màbb doo ko ñëw nag defaraat ko fekk kaaba gi xam nga sayidna ibrahim moo ko tabaxoon bi mu ko tabaxee itam demoon na ba juróom-ñeenti mètre ci kaw yaatoo lu xaw a jege fanweer mètre daanaka dafa dafa yaatu waa Makka nag dañ ko tabaxaat niñ ko tabaxee mooy waa dëkk ba kenn kon dañ laa sos dara ne la nga joxe bañ joxee nag ñu dajalee xaalis boobu ak alal jooju tabax ci kaaba gi ci leen ko tabaxal ab romain la boo xam ni mi ngi tuddoon Baaquum dañ ko wuti woon muy ab tabaxkat bu ñu xam ngir mu ñëw ñu jàppale ko te ne booba kër yi famille yi ci dëkk bi dañuy def kenn ku ne ñu wax ne la yow wet sàngam yaa koy tabax yëkkati ko ba ba nga xam ne yow sa njaboot ak waa dëkk waa kër googa ñooy ànd di indi xeer yeeg di defar si ba ba lépp taxaw romain bi nag moom nekk architecte bi nga xam ne mooy wax mbir mi suñuy jaar ak li ñuy def ak la ci topp waaye biñ ko tabaxee ba mu àgg ba mu des nag fi xajarul aswad ne xam nga xajarul aswad aw doj la wu ñuul woo xam ni cosaan la te àjjana la jóge loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax Seydina Ibrahim moo ko ci defoon mu doon doj woo xam ni ba ñëpp dañ ko dañ ko warmaal ba fi mu ne nii def liñ ci mujj def seetlu nañ ni maanaam bi nga xamee wax na ni am nañ ci sax nañ ba jël ci dara yóbbu ko ci laboratoire laboratoire yu yees yi gis nañ ne doj woowu bokkut ak doj yi nekk suuf yi dara doj woowu nag naka jekk arab yi moom dañ commencé dañ commencé di ko màggal yàlla dogal nag biñ demee ba nga xam tax bi àgg na ba dugal ci doj woowu rek def ñu xajar asar mooy li nga seen ñu koy yër nii foofu ca mag waa dëkk bépp nag kenn ku ne ne nun suñ waa famille ñun suñ waa kër noo ko war a def loolu ndax xam nga makka wàllu giir yi ñoo fa nekkoon kenn ku ne di xëcc jëm sa kër ak sa bopp dama ko ni ma ko misaale fii ci dëkk bi rek li maanaam mel na nga ne waa kër mu daw ball waa kër bu ko doon si waa kër sëñ maanaam ñu kër kilifa yi nga fi xam maanaam genn kër la ñoo bokk maam waaye yëpp ay famille waat ay famille la famille bu ci ne nag kër gu ne day jàpp ne moom maanaam lu lu toll noonu ci daraja daraja ji toll noonu moom rek moo ko yelloo bi loolu amee dem nañ ba nar ci xeex te buñ daa xeex xam nga maanaam bu ñu xasee ba giñ ne de faaw maanaam maanaam bu li amee dinaa xeex yow jenn te boobu dem nañ ba àgg ci loolu banu abdi daar àgg nañ jël ab pot def ci dara dugal seen loxo ne maanaam mu mu tegtal ne juñ nañ ci ne maanaam moom ñoom bu fekkee ne ñoom dugaluñ móol bi rek keneen ku ko dugal ñu xeex yow nga xam ne moom xeex ba normal teg ci dëkk tàkk ci dëkk ba yàlla dogal nag bi loolu amee ki ñuy wax umayya ibnul mughira umayya ibnul mughira maxsumi nekkoon mag mu mu mu ñëpp warmaal ca dëkk ba moo ne leen léegi daal li koy saafara mooy kuñ gis mu njëkk a jaar fii nañ ko atteloo ñëpp ne loolu bismillah am na yàlla dogal biñ ne tekk ba mu yàggale Seydina Muhammad ne tëll jóge jaare foofu ñëpp ne haadal aminu radinaahu radinaahu maanaam ñëpp ne ah kii de moom moom moom am na bi kii moom ak wóor rek lañ xam ci moom moo tax moom ginnaaw moom la moom léegi nun waa dëkk bépp am nañ ci mu attale Seydina Muhammad ba mu ñëwee nam leen attee mooy dajalu mbalaan tàllal ko waa dëkk bi kenn ko mën a jàppal ci wet jàppal ci kii mën a jàppal ci mu jël mool bi teg teg ci biir mbalaan bi kenn ku ne nga jàpp ci ak wet ñu indi indi ba mu jege mu jël ko dugal ci dugal ci soxla noonu noonu leen atte te loolu xeex naroon na ca am léegi nag waa Màkka biñ biñ tabaxaatee kaaba gi daa am luñ ca bàyyi ndax ñoom dañoo gis ne lañ yor ci alal mënta tabax lépp kaaba gi daa rëy moo tax boo boo dee seetaan dangay gis lu mel ne mool wu ndaw buñ def nii loolu ci biir kaaba gi la bokkoon Seydina Ibrahima da ko ca booloon ñoom nag dañ ko ca boolewul moo tax fi ne nii kenn du ci jullit ca biir loolu ñu alxajar xejuru Ismaïl lañ ko tuddee ak alxatim nga xam ne li ñuy wax maanaam mir al la ñuy wax mirsab yaakaar naa lañ koy wax mooy la ko tiim noonu mel ne luy jënd ndox loolu foofu ne kaw bërëbu nangu ñaan la waaye ci biir kaaba gi la bokkoon li wër kaaba gi itam am na loo xam ne zéro virgule ay vingt cinq mètres lu ñu toll loo xam ne dañ ko wërale kaaba gi nii ba léegi dañ ko fa mandargal loolu lépp ci biir kaaba gi la bokkoon waaye dañ ko bàyyi ñoom bu ko defee nag loolu moo tax kon loolu mooy daal gàttal gi njëkk Seydina Muhammad tàmbalee woote loolu mooy li ci xaw mooy ñëpp maase woon nañ ci ku wóor la woon te itam ñëpp maase nañ ci ak wéram ñëpp gis nañ itam barke bi nekk ci moom ñëpp itam weg nañ ko warmaal nañ ko ndax ñoom dañ daa wax ne moom kanam gi rek boo gisee xam ne kii ku wax ko du dëgg la moo tax bi nga xamee ne tàmbali naa woote biñ ko dëddoo ñoom ñëpp bëgg ko tuumal ay tuuma tuuma yooyu mënta sax loolu dana ci ñëw insha allah xëy na mel na ne waxtu wi dana dab maa ngi jégalu ni ma ko topp nii ba léegi nu sax bu gën a gaaw bu saw yàlla yàlla na yàlla defal tawféex yi taas na ci seen barke barkeem ak barkeem barke guddi gu sell gi nga xam ne moom lañ jublu te itam ni ma ko waxoon dem rek Sëñ Tuubaa wax na ne maanaam ku ko màggal moom guddi gi ak façon boo ko màggal rek loo ci def ci ci ci lu baax wala ci sa alal da nga mel ne ku fekkee xareb Xunayn ak xareb Badar loolu nag wax ju réy ngi noonu dara gën koo réy waaye su classe ñaa ne defoo dara mën a am daraje maanaam ku fekkee xare yooyu te xare yooyu dinañ ci ñëw ci kanam maanaam am am ab ragal mënu caa bokk ñooñu lay jaay seen bakkan jaay seen adduna maanaam loolu nag lu lay may tuyaaba ju toll na dara gënu ko rëy ci adduna te loolu la Sëñ Tuubaa wax te li mu ko waxee noonu la wér fa man li mu ko waxee fa kullu man qad xadara mawlidahu fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musharrafi maalan bi gayri sharafi ولو بقدر درهم فإنه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفرحين kon loolu itam dinañ ci ñëwaat ca bis boobu soobee yàlla ci lu gën a gàtt ci lu gën a gudd wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu